ñu santoon rek sax nañu def leen ko dañ ko def rendre ko compte waaye nag présence am fii saa bu ko gisee muy fii muy feneen ah, dañ si am mbégte donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla na loolu yàgg eh, di ko xamal tam eh, sëñ bi eh, di ko yeggali bien sûr di ko ñaan mu yeggal suñu nuyoo ak suñu ziar si Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum di xalif général des Tidianes waaye si mbooleem njabootu Cheikh Sidi El Hadj di ko xamal ne euh, ñu ngi amal beral ngërëm li nga xam ne mooy comité d'organisation ndax le comité d'organisation euh, si seen cahier des charges daf ñu yombalal bu baax liggéey bi ku si képp kenn si ñoom dañuy sentir ci biir organisation bi depuis si CDD bi ak si CRD bi engagement ak ak yéene bi mu am vraiment pour que xew-xew bi mucc ayib te loolu nag sëñ moom lañ ko jàngee ndax xam nañ sëriñ bi euh, amul lu mu yéenewul jullit yi àddina waaye amul lu mu yéenewul Sénégal waaye amul tam lu mu yéenewul Tivaouane moo tax maa ngi koy wax léegi euh, monsieur le maire de Tivaouane di ko naan ñu ngi koy ñu ngi félicité comité d'organisation bi si li nga xam ne mooy initiative yi ñu jël pour que au-delà même du gàmmu ñuy xool. ni ñuy def ba moderniser Tivaouane président de la nag euh, ànd si loolu du kontaan si loolu santaane nañ jàppale si loolu le maire si boppam ñu ngi koy gërëm di nuyu di gërëm tam l'honorable député Cheikh Tidiane Diouf bi nekk fii euh, ak mbo euh, moom le ci biir waxtaanam sentir nañu moom itam perspective bi nga xam ne mu ngi ko bëgg a accompagner sëriñ bi ak Tivaouane parce que génne na fi ay yoo xam ne jarul mag fii di ànd xam naa sëñ bi dañ ko si rendre compte si wàllu liggéey bi ni ñu ko war a tëralee te incha allah xam naa ne en tout cas avec ñaanu sëñ bi ak xelam bu rafet ak encadrement avec engagement comité d' bi avec engagement maire ak mboolem ñi si jàpp incha allah xam nañ ne euh, organisation bi du am benn problème li si des sëñ bi ci biir waxtaan bi ñu fi def si CDD bi maa la koy wax léegi suma bureau. Euh, liggéey bi comme ñu ngi koy commencé xam di ko commencé miin bu ma nee ñun mooy mboole bi nekk fi si table bi euh, du du du du naagu parce que damay wax nit ñi que xew boo naagu rek mu mën nga si am mbetteel loo ko miin miin miin miin boo koy engagé ne mel ni mosoo koo xam loolu mooy tax nga am ki nu mu tudd euh, précaution yëpp nga jël ko ba dara du manqué si wàllu boobu nag service yi nga xam ne dañ fi convoqué woon ñoom ñëpp daal wane nañu engagement wane nañu parce que te question yi leen posé ak engagement yi ñu jëloon bi euh, firndeel nañ ko biral nañ ko xamal na leen tam que lii mën naa wax ne ñaaree étape bi la ñaareelu étape bi la ndax après CDD bi ñu ngi si CRD bi tey des na réunion nationale bi ak réunion d'évaluation bi te diggante boobu ba gàmmu gi ñun ñëpp dañuy mujjee sëppaliku bokk si comité d'organisation bi maanaam waratul mën a am euh, benn moment boo xam ne dañ bàyyi suñ loxo di yëlëb suñ loxo dinaa dañuy xaar ba waxtu bi jot C CDD bi bu tàmbalee rek wala comité COSCAS bu réunir rek mën nañu wax ne gàmmu gi organisation bi commencé donc si loolu la taxaw te ba fi ñu nekk nii vraiment suñu xel dal na euh, si li ñu xam ne mooy waajtaay yi am na point yoo xam ne soulevé nañ ko yoo xam ne euh, comité bi am na lu mu si bëgg euh, ñu chef de service yi gën a bëri si chef de service yi nga xam ne ñoo yor santé bi sécurité yore lépp li nga xam ne dafa jëm si wàllu organisation matériel bi jox nañ si ay responsable ay réponses yu ñu am satisfaction waaye nag ñu dañ leen ne comme Tiwaawoon dafay manque euh, gàmmu gi di yokku euh, li wolof di wax ne ku yokkul da ngaa wàññi moo tax dañ leen ne ku nekk si ñoom na fi def non seulement liñ ko sant mais na fexe ba am lu mu si yokk incha allah ñoom ñëpp jël nañ engagement yooyu te dañ fexe ba loolu mën a am Euh, point yi nga xam ne xawoon na sant xaw na si sentir quelques difficultés euh, yooyu itam lissé nañ ko mooy yi nga xam ne chef de service yi si fi ñu toll ni tey euh, xool nañ ne ah fi ñoom fi ñu toll tembe lii la ñu mën a gum ñoom tam dañ saisir seeni kilifa muy les ministres concernés te ñu toogal leen fii pour que ñu jël disposition yëpp incha allah pour mu jaar yoon donc daal si fi ñu toll ni tembe suñu suñu xel dal na suñu yaakaar dolleeku ak sa présence waaye suñu engagement tam dolleeku te di la xamal ne incha allah euh, jël nañu ñun ñëpp fii euh, Pastef ak euh, taxawaay ak teewlu pour fexe ba li nga xam ne mooy gàmmu Tiwaawoon mu jaar fu mu doon jaar si satisfaction yow si satisfaction xalif bi si xalif si satisfaction mbooleem waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick ak taalibe yi si satisfaction monsieur président la bi Macky Sall ak gouvernement loolu mooy li nga xam ne buggoon naa la ko di la gërëm di la sant si sa teewaay ak mboolem njaboot bi jërëjëf salaam